mbokk yi compagnie Sénégal c moo ñëwaat ak ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbind bi dina door jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala le 70 736 36 36. rafetlu seen ànd ak suñuy ay programme ci votre chaîne YouTube Tawfekh Production Euh, votre chaîne préférée euh, chers internautes ni ngi leen di jaajëfal amaan mbégte teewaat teewaat fii ci ayu bés bi ngir euh, faram-fàcce l'actualité de la semaine Abdoulaye Ndiaye ci kàddu gi di ci ànd ak ci la technique Mourtala Gaye le grand technicien jëwrin également di ko ziar bu baax di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu bàyyi xel fépp ci àdduna wërgal këpp di ñaanal bu baax a baax Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na fi yàgg lool tànn ak wér ak njabar gi yëpp mbokk yi actualité de la semaine ku nekk xam na ne am na ci ay euh, point yu saillant point yu am importance yu ñu bëgg a aborder euh, la première euh, chose bokk na ci lu jëm ci mbirum Khalifa Ababacar Sall ak coow li ci jiito ku nekk xam na ne ci dibeer gi wees kii Souleymane Jules Diop def na benn sortie ci benn télévision benn organe de la place siwal que ni Khalifa Ababacar Sall ak président Macky Sall réeroowuñ dañuy gisante loole nag jur coow ci langu politique yi euh, nekk loo xamante ni sax ay kàddu weddi soxe ko na ci euh, ñi àndandoo Khalifa Abacar Sall bërki demoo Ndiaye également déggaat nañu xalifa Abacar Sall yi tamit demaat na seeti Ousmane Sonko di dem bërki démb journée bind ko euh, ci wàllum gisee loole nag jur benn interprétation sur le plan politique ndax xalifa Abacar Sall day jouer le jeu qu'est-ce qu'il train de faire bu fekkente ni Souleymane Jules Diop wax na wax yu ni mel ndax ku nekk xam ne ne euh, Souleymane Jules Diop am na ndombal tànk yoo xam ne dénkoon nañ ko ko ci euh, mu jégale président Macky Sall xëy na la mu wax am na fu mu ko teg lu ci mën a am comme wolof dane tunguli du teew nataal ñi ànd ak moom ku yore porte parole rawatina Moussa Taye na ko waaye lu ci mën a am mooy fekkente ne nii am na Khalifa Ababacar Sall kon day jox raison ñi nga xamante ne daw nañ jàpp ne tekk tekkaaralam gi silence assourdissant bi mu euh, mënee jamono ji dafay mel ne day xel sur le plan politique parce que gis nañu ba mu génnee kaso ba léegi <coughs> de bokkoon na si njëkk wuy ji woote président Macky Sall euh, ba pare mu noppi ba ba tey kenn déggu ko euh, ñu jàpp ne xëy na am na lu ñuy nas ci biir loole ma jàpp ne aussi bu fekkente ni dafa dem seet Ousmane Sonko gis nañ fa seen ndaje bi bu dee coalition la xëy na it tamit également day dàq waxu ñi jàpp ne Khalifa Ababacar Sall day dem gisee ak président Macky Sall kon ñaari version ñaari approche yooyu la mën am waaye li ci mën am mooy tamit nag day mel ne kon day jouer le jeu c'est-à-dire que nit ñi aussi duñu xam euh, ban gis-gis lañ ci mën a am par rapport ak ces va et mais li ci mën di am mooy coalition bu ñu mën di teg tamit nañ xam ne pouvoir bi ñoom jamono ji ñu ngi def majorité présidentielle boo xamante ni coalition la ñuy waajal ngir nag jëmën jëm euh, a fexe ba akimoo arène politique bi kon il est temps également que des leaders comme Khalifa Ababacar Sall et Ousmane Sonko wane seen taxawaay également sur le plan politique ma jàpp ne Khalifa Ababacar Sall waru mën a trahir la confiance des Sénégalais demoon moom ci président Macky Sall mooy il signe sa mort politique comme l'a fait sa Seck parce que Idrissa Seck moom sur le plan politique il est il est mort complètement amul sax ma dem te ñëw donc bu tegoo si tank aussi dem jéem a fexe ba président parce que président Macky Sall élève bu mokkal leçon la. li mu tari ci li mu jàng ci Abdoulaye Wade dafa tari ba tari loo xamante ni sax Abdoulaye Wade est-ce que jàngoon na ko sur le plan politique parce que Macky a réussi son coup on, on parce que réduire réduire l'opposition jusqu'à sa plus simple euh, expression c'est ça qu'il est en train de faire donc de ce fait Khalifa Ababacar Sall les gens qui lui avaient donné confiance am ci moom yaakaar bis bu ko wujjee na jàpp ne nag bakkanam mi ngi ci xottu gerte. muy tawfeex ju rëy kenn xamul